toute l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Amakou djouf ak Dame Mbodj ak ñeneen ñi Yen teew maa ngi leen di nuyu journalistes indi wér yaram Djam ak fan ci ku nekk ci yéen ak ci réew mi may ñaan tamit yàlla may suñu juróomi soldaar commando marin yi réer yàlla delloosi leen ci seen biir njaboot ci wér ak taal maa ngi gërëm di sant responsable yi fi teew te di ndax suñu réew dañu nekk ci jamono bu am solo Mwen yon yon am eleksyon yon djouk, yon lèr, yon djar yon, yon nyep pou moun bok, mba am tek mwur ki tek kipopou nin ni, nir tan nou, nididem ti eleksyon yon. Mwen yon grem bilen sante, yon jurnalist yon, yon ditew toujou ti yon wote. Grem len sante len, mdak yon nadok sou yon digente, ak askan wi ndax kat tey dañu leen di jox ay xibaar yu wóor yu leer xibaar yooyu dañ ko jëlee ci ñaari document yépp ñu ngi jóge ci conseil constitutionnel danañu leen ko jëbbal te moom lañu leen won nii ci rétroprojecteur bi document bu jëkk bi moom la Souleymane wone nii boobu moo di bés bi ñuy déposer dossier bi suñu mandataire Tabouret Agne di ko déposer moom la signe ak greffier en chef bu conseil constitutionnel ñaareelu document bi mooy document bi nga xam ni bés bi ñuy saytu suñu parrainage yi boobu ñaar ci conseil constitutionnel ñoo ko signé kii yore parrainage

tamit ñu jël maître mu avocat mu avocat maître Basirulo, ko jëlee tamit mu bindal xibaar yi ñu te suñu mandataire Tabouré Agne dem déposer tribunal mu nekk ñun réclamation

su ngeen gisee ñaari documents yi wuute nañu fukk ak ñetti parent su doon ay nit ñooy lim kooku wuute mun nañu wax njuumte day am wante lii numérique la fichier numérique la mun naa wax lu tolloog fukki at lu tolloo sa ak téeméeri at soo sooy xoolaat lim bi warul soppeeku warul soppeeku c'est numérique loolu moo soppeeku wante soppeekuwul foofu rek suñu demee tamit ci ñoom ni ñu séddalee lim bi ci région yi gis nañu tamit dafa soppeeku loolu jox naa leen ñaari tableau yu wane wuute bi soo jëlee tableau bu jëkk bi nga jël région de Dakar wuute bi ñaar la soo jëlee région de jurbeel foofu ñoom

lim yi wuute dangay jàpp fukk ak ñaar mais ci njalbeen wax naa leen fukk ak ñett lañu soo loolu la yaa ngi xam lu tax fukk ak ñett la war a doon mooy nga xool li mu jurbeel bi ñu tëb soo xoolee li mu jurbeel bi ñu tëb nga dindi lim yi ñu wax yépp dalay jox li pour li mu jurbeel 4746 muy ñeenti junni juróom-ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn xam ngeen bon day indi wuute benn ak lim bi nga xam ne bu ñuy saytu moom la ñu joxe muy 4745 donc benn bi foofu la jóge ci li mu jur mu delloo si nekk fukk ak ñett yu ñu gisoon lii munul nekk ndax juróom-ñaari région et li ci li ci gën a doy sax du lim boo xam ni day bii day yokk bi wàññeeku yépp dafa wàññeeku yépp wàññeeku la mënul nekk li ma leen wax électronique la électronique la mun a dem bi téeméeri at du warul soppeeku bon loolu day tax ni suñu clé boobu ñu joxe woon clé boobu ñu joxe woon mbaa dañu ko laal mbaa dañu ko laal mbaa dañu ko jël beneen clé remplacer ko moo tax ma ni ñun de suñu clé bi ñu déposé woon te ñu ni sous scellé la nekk laal nañu ko mbaa dindi nañu clé bi ñu déposé dugal beneen clé ndax wuute bi mënul nekk mënul nekk kenn mënuñu justifier fichier mo am ay fan lim bi ko ken mënu ko justifier parce que nak quand même am nañu as touti xam-xam ci numérique suñu cellule informatique ñi ci nekk yépp ay informaticien lañu xam nañu li ñuy def benen bi mujj bo mom mëna wax rax ci dolli la ndax suñu cellule informatique bu ñu paree loolu mu continuer di saytu ba bërki demb ci guddi rek benn mbir bu doy waar egsi bu ñuy xool ñi nga xam ne nee nañu kenn gisu leen ci fichier électoral bi xàmmee wu ñu leen ci fishier électoral bi ñu gis ci sama tur man ñi nekk candidat ñu seet parce suñ gisee sa tur fekkee dañu juum ci bind tur bi fekkee dañu juum ci bind tuur bi mun nga wax ni ordinateur bi mun na ko bañ a xàmme application bi mun na ko bañ a xàmme wante ñu seet mari taw amul njuumte ci ni ñu ko bindee ñaan amul njuumte numéro carte électeur bi amul njuumte numéro identification nationale bi amul njuumte date expiration carte d'identité bi amul njuumte bon données personnelles yi ñu laaj amul njuumte nan lañu bañ a xàmmee loolu ci fichier électoral bi te ñun gëm nañu biir nañu wóor nañu ñu ngi ci fichier électoral bi li ko waral mooy benn suñu coordonnatrice nationale des parrainages Yaye Sabel Ngom bu mu demee ci DG DGE

Man, amnen lo ap nyar fukyat belegi amoul eleksyon bouye sou te vote woumou mouy prezidansyen mouy depite, mouy eleksyon lokal te vote woumou folay ti Dakar Bangou ti bureau numero 1 ti Nat Bon, loulou devote doywar trop Yen jurnalisti ak askan wi li am opération la di teggi kenn par kenn ci jamono bu nek ci opération électorale bi parrainage candidat yi nga xamni kenn bugulen nguur gi bugulen candidat yi nga xamni ñom ñoy won askan bi njaaxum yi nguur gi di def candidat yi nga xam ni ñoo àndul ak noot bi ñu noot suñu askan te tamit booleeg noot suñu réew ay lim bu tuuti di nguuru ci senegaal loo xam ni amul benn njëriñ doomu askanu senegaal lu dul fitna ak jàqare ak tamit nekkal bitim réew fii ci suñu réew moo tax ñu dellu si di wax ni ñun élection yu jub lañu soxla élection yu jaar yoon la ñu soxla élection yu ñu dindiwul kenn ku war bokk ci élection yi li tubaab di wax élection inclusive loolu lañu ñu mus a wax te it dañ koy dellu beneen bi moo di ñuy ñaan conseil constitutionnel candidat yi nga xam ni def nañu recours ñu xool recours yooyu ku nekk ñu delloo la sa yelleef ngir ñu bokk ci élection yi te ba léegi ñu am yaakaar ni conseil constitutionnel dëgg yu wër peñ yi ñu leen won te ñu yónnee ko. moom it dana ko xol ñu am yaakaar dana doxal dëgg delloo suñu suñu yelleef ñu bok ci élection yi ma ngi leen di gërëm di leen sant jërë ngeen jëf. toute toute l'actualité à temps réel à temps réel sur Référence TV Référence TV la